naaw décision ba rot na. Euh, ah. parce que c'est une décision boo xam ne dafa am lu ko jiitu. mooy le ministère de la justice dégg nañ ko. bu ñu naree wax mu ni un détenu politique ne doit pas parle ne doit pas communiquer. Ouais. loolu c'est un communiqué officiel ñu ni sonk moo wax je mets un point d'interrogation la dessus hmm. ma bàyyi ba ma am la véracité hmm. sur par quel canal il a communiqué qui a communiqué à sa place parce que ma ni Sonko foofu mu ne ca Facebook de la ko ne yoru na téléphone bu mu mënee connecté boppam mu envoyé message wala loolu moo tax bugguma ko commenter pour cette raison mm. mais revenons sur la situation actuelle ouais. je me désole du manque du dialogue politique au Sénégal situation bi yëpp tintamarre bi yëpp ñu def c'est le jeu politique le jeu J E politique parce que un jeu politique ça doit être un débat serein un débat calme un débat orienté sur les enjeux de l'heure au Sénégal amoon na fi hmm. 98 moo gënoon métti situation bi mais fan la ñu mujjee léegi ban télé mooy teg un débat serein en politique ki ko war a incarner defu ko c'est la RTS et on se désole sëñ bi man xam nga man lu may wax dama koy gëm walla ma bañ ko wax parce que c'est pas sans limite en tant qu'organe privé moo war a assurer le service public le service public dafa am ñu ñuy fay pour que ñu incarner ko matale ko inviter les acteurs politiques autour du débat serein calme et orienté vers des solutions pérennes mm-hmm. amul amul benn débat politique boo xamante ni le service public muy soleil muy RTS muy APS je le dis à haute et intelligible voix ñu ngi koy incarner qui est l'acteur politique buy dem RTS pour waxtaan waxtaan bi dañ ko war a diisoo où est-ce que nous en sommes sur le processus électoral mu njaay dinañ ci waxtaan ñu interroger carte carte électorale bi interroger les experts interroger les politiques interroger interroger interroger pour que chacun en ce qui le concerne puisse aider le président de la République dans la prise de décision parce que finalement il y que le président Macky Sall moom moo yore signature si tous les acteurs étaient d'accord que toog nañu ñu interroger le fichier Ousmane Sonko dafa war a bokk warta bokk waa Pastef joxe seen xalaat xaw ma dañ ko dissoudre xaw ma dissoudre ñu ko hmm. tous les acteurs donnent leur avis on peut arriver à un consensus beneen affaire bi le dialogue politique tey jii muy opposition et pouvoir fii nii ñu toll lu mën a indi dal mën a indi jàmm mooy le dialogue politique mais le dialogue est biaisé le dialogue est faussé parce que lan dañuy jàpp ni que ni il existe des hommes à abattre il existe des des des, processus yoo xamante ni on peut ne pas respecter pour arriver à un à une fin mu arranger opposition wala mu arranger truc pouvoir c'est ça le véritable débat pour moi Ousmane. Hmm. leneen li. mooy. processus bi dina gën a métti keroog maa ngi wax fii xalabante bi dina gën a bëri. Ah, ngeen tàmbali dina tàmbali te day gën a ñaaw parce que lan le processus avant la ñu tegul sur des bases solides te day compromettre pendant le processus bu ñuy commencé naan suba la campagne bi day démarrer ay kii moo tax problème yi bëri au Sénégal parce que on n'a pas réglé le jeu avant. Mm. tey ñu ngi wax ay conseil constitutionnel conseil constitutionnel dina jël sax décision nit ñi di reyante lu ko waral conseil constitutionnel tey jii bu ñu ko indilee lan lay ci lan lay basé wu que des documents ñu ne la diw matale na matale na boobu sax amuloo benn soubassement boo xamante ni tu peux avoir la sérénité de contrôler liñ la liñ la liñ la dàkkee. ñu may la ñaari fan wala ñetti fan. xëy na mu njaay après nga truc bon bref je pense que les Moundiaye tey jii. Hmm. am nañu liggéey. Ah. liggéey ba ñu am. ñoom en tant que organe qui veille aux droits humains à la démocratie parce que démocratie nag c'est pas un vain mot la société civile sénégalaise dafa war a taxaw te je pense que on a des hommes qui peuvent aujourd'hui désorienter les jeux que ça soit dans le côté de l'opposition ou bien dans le côté du pouvoir ñoom dañu war a taxaw à un rôle d'équilibre du jeu électoral et c'est sur ce qu'aujourd'hui boo waxee bu kenn waxee ñu ne la opposant la boo waxee ñu la diw diw la alors que fii on n'a que des convictions de voter pour un Sénégalais qui va présider aux destinées du Sénégal pendant au moins cinq ans duñ ko jox n'importe qui on va voter et on va voter utile mais que le processus électoral soit